salaamaaleykum wa rahmatullah Ousseyn ñu nuyu la bu baax ziar la di la ñaanal yàlla jàmm ak sutura ak mbég ak xel mu dal yàlla kàttanal la tey Ousseyn nga ñëw fii tey ci bangu Seydouna Mohamed fii ci Seneweb TV di site boo xam ne ni tey réew mi ñëpp ngi koy seetaan ba ci diaspora bi ñëpp ngi koy bàyyi xel Ousseyn ku ko xam xam ko ak Thierno ba ñu bokk benn deret ñu xam ko fii ci Pikine mouvement bi tudd Pikine ci laa bokk te ku ne Pikine xam na ne Pikine ci social lay dox tey lan mooy sa yëg-yëg tey fii nga teew tey ci bangu Seydouna Mohamed. waaw jërëjëf euh, sëñ bi asalaamaaleykum mbooloo mi ñi fi nekk ak ñiy seetaan ñëpp maa ngi leen nuyu jile la di kontaan trop si euh, li ma defal nii ma am kontaan kontaan ci li ma ñëw fii. parce que fii ñu ñëw si baamu Seydina Muhammadu Rasulullah nga xamante ni mooy gënd bi naaf. ku dem màkk fa mu tëdd Medina nga xamante ni kenn du moom kon nag waa ban bi ñu war a jàppale leen te dañu fekk ñu yëngatu social te ñun ku yëngatu social rek dañu ñëw pour jàppale jàppale la collaborer ak yow pour jàppale la si li nga yëngu ñun loolu mooy suñu objectif donc alhamdulilah boo ñëw seen jàng yi fas yéene jàppalante ñoom pour lépp ñuy taxaw lu ñu dugg ñu jàpp leen parce que ñun Pikine moo ñu ñor bépp doomu Pikine ci lépp lu muy yëngatu fas yéeneen ànd ceeg yow ba nga réussir ko ci kàttanu Yàlla suñu borom. Ouzin ñu xam ko ak Thierno Ndamba mu nekk ci ginnaawam bokk ak moom deret di ko liggéeyal di dem fépp foo xam ne ni Thierno war na faa dem rek mu teg fa tànkam moom Ouzin ci xew-xew yi muy dem lan lay yëg bu demee ci xew-xew yi nga xam ne Thierno fa la koy yebal. waaw maa ngi maa ngi sant tamit ci loolu ndaxte ñu bu ñëw comme ni nga ko waxee dañuy ñëw ci ndigalu suñu président. Euh, mouvement Pikine si bokk mi Thierno Ndomba ba mi nga xamante ni fépp foo xamante ni mënu fa teew am na ñu koy teewal am na ay délégation yu koy teewal man dem leen di gunge dem leen di gunge si délégation yi saa yuy dem ci événement am na délégation yu ñu formé tey bi ñu ñëw fii tey programme tey bi maa ngi fi ànd ak soxna Marème Mbodj Djibi Sall Abdou Aziz ñëw fii pour représenter Thierno euh, Thierno Ndomba président mouvement si la bokk euh, Pikine si la bokk. kon réew mi ngeen xamee ko noonu yéen mbokk internet yi ngeen xamee ko noonu ku xam Thierno ba xam ko ci Pikine xam ne ci social lay dox waaye waa ban bi nag ñu ànd ak Thierno Ndomba ci liggéey boobu nga xam ne ni moom la fas yéenee liggéey. ànd ceeg Ouzin mi nga xam ne ni moom mooy dallu Thierno Namba ndax tey ku bëgg a gis Thierno ba ci pikin soo jaaree ci moom day yomb ndax lépp loo xam ne nii ci social lay dox moo xam ni tëdd feebar wala moo xam loo xam ne ni ci wàllu kër la moo xam ci wàllu luyaas lépp loo xam ne nii doomu aadama mi ngi ciy nekk rek am ci ay xat-xat boo leen seet see incha allah dinañ la lijjanti waaye lan mooy sa dernier kàddu lan ngay eh, wax askan wi lan ngay wax ñi nekk ci diaspora bi lan ngay wax ci actualité ni réew mi ni muy doxee jamono juñ toll ndax ku ne waa kër yonent bi xam na ne ci jàmm la ñuy dox suba ak ngoon. jërëjëf question yi nga mu posé boobu mu si gën a neex dañu war a sant yàlla suñu borom. julli si gën mi neef Seydina Muhammad rasulullah ndaxte Sénégal réewu jàmm la. jàmm rek mooy fi xaj sutura sutura yàlla moo koy defal nit teraanga aussi yàlla moo koy defal nit nguur pouvoir tamit yàlla moo koy jox doomu aadama ci loxo yàlla yoon na nekk mën nga def lu nekk sol ci lu nekk mais yàlla bu ko dagul tudd ko du am lu ñuy defal yëngute yàlla na yàlla yàlla na fekk mu soob yàlla lépp lu ñuy yootu aussi lépp lu ñuy yootu yàlla ñëpp la fi nekkal nañ ci ànd ak dal dal ak xel xel dal ak xel dal ak xel buñ ko defee rek si kàttanu yàlla suñu borom lépp loo bëgg yar ak teggin ñu ngi ko jot si kàttanu yàlla suñu borom. mbokk yi mu ngi noonu li Ouzin wax rafet na jàng yaa ngi nii nag mi ngi fi ba ci kanam ñu ngi xaar yeneen autorités yoo xam ne ni ba ci monsieur le mi nga xam ne ni moom lañ fas yéene delloo njukkal ñu ngi ko fi xaar waa kër Thierno Ndomba ñu ngi leen di sant gërëm leen lépp loo xam ne nii rek. xalaat nañ ko ci réew mi xalaat ko ci pikin lu koy jëmale kanam ak social bi ñuy dox yàlla na leen ci yàlla defal jàmm defal leen ci ay ndami ndam ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm mbokk yi mi ngi noonu ñu xaaraat yeneen ñoo xam ne ni tey ay kilifa lañ fa yéene ñëw ci bis mi sant nañ la gërëm nañ la jërë ngeen jëf